daa di daa daa daa di daa ñi nga xamante si mooy ñoom Sidi ah ak ñoom Matar maa ngi di nuyu waale léegi nag ba mu jotee ak ñoom gars yi ma ne ko ci geste boobu noonu mu defoon léegi nag gars yi danoo dem Côte d'Ivoire dem seen tournée Côte d'Ivoire bàyyi fi njàpp danoo dem seen tournée Côte d'Ivoire daal fii bàyyi njàpp nag yóbbaale wuñ ko Côte te njàpp tamit dafa am yaayam am papaam war leen a jàppale léegi amul fu mu dem amul ku mu fu mu fekk amul fu mu dem moom tamit mu dem ci faramare ni ci waali te waale xam nga du minimiser doomu aadama waale ku ñëw dalay aj gis nga Ibra Naajo ni mu ko def da ko aj ca kaw ku ñëw dalay aj teral la te waale soiréem li ci neex mooy dalay jox ay millions yu bëri xoolal da ngay wàcc léegi jot sa kase léegi plus de deux cent mille sa kase bokkut ak li ngay am ci kaw seen bi de déedéet dalay jox sa kase jox la li koy am ci ko seen bi yaa ko mayaat buñ ko mayee xaalis mu yëkkatiwaat jox la ko mayaat na ko yow yaa ko moom njàpp li mu fa jëlee démb ëpp na deux millions lii mooy coow li gars yi da doon dem tournée Côte d'Ivoire yóbbaale wul njàpp bàyyi ko fi ndax seet si bële mu defoon waaw maxu nag sama waay la sama xarit la mais dama bëgg euh, nga am esprit mental tuuti ci boy yi parce que ñii ay xale lanu ay ndaw lanu bu nu juumee da nga leen di woo nga am noo leen ko noo noo waxtaan ak ñoom yaa ngi dégg mais doo dund ak ñoom sale boulot wala beneen beneen façon parce que loolu baaxul te Wally du minimiser doomu aadama njàpp da ngeen a dem Côte d'Ivoire bàyyi ko fi loolu moo tax mu dem ci Wally Ballago Seck Wally jël ko nag aj ko uusoolee faramaren gars yi di toj di daanu di daanu di daanu di daanu non man loolu sama xol dafa sedd moo ma fekkoon sax damay maye li ma yor parce que waalee woote uusoolee faramaren waalee woote faramaren yi yëngu lii moo waral coow li Côte d'Ivoire lan dem bàyyi ko fi waaw dan ko fee bàyyi ñoom ña nga tourné d'Ivoire bàyyi fi njàpp kenn yóbbuwu ko looloo waral mu dem léegi nag Matar ak Sidi yéen laay waxal à tout moment moom mën ngaa dégg Sidi Diop ki na Sidi Diop dem ci waale Matar yow laay conseil Matar gis nga Matar euh, yow maanaam li daloon Lamine Samba laay bañ mu dal la ndax Lamine Samba Lamine Samba gis nga ko journaliste yu bëri moo leen defar ñi ay ñépp ci moom la ñu génnee ah non Bougane Gueye Dany laay wax ma naan Lamine Samba li daloon Bougane gay Dany Bougane Gueye Dany dafa defar ay mbërëm defar journaliste yu bëri créé lépp anañu tey mënu leen a tenir ñoom ñëpp nag ñi ñi ngi ci yeneen télé yi di liggéey te ñoom ñëpp Bougane moo leen formé Bougane Gueye moo leen defar yow nag defar nga ay fecckat sii di defar nday njaay bànna yaa defar na njàpp defar na ay nit ñu fort mais tamit nanu dawal esprit yi dawal mentalité yi kàddu yooyu laa amoon ci sama analyse ak lu ma ciy sànni waaw loolu laa amoon ci lu ma ciy sànni waaw di nuyu waale ñoom Matar di nuyu waale Sidi Sidi sama grand frère la Matar sama xarit bu baax la waaw faramari yi moom démb kontaan naa où sont fara ah, eh